ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tour ak sa sant di leen siyaar bu baax a baax tey nag euh, ngeen àndoon ak kilifa gu mag ñu demoon seeti ko ñun waa media TV muy Serigne Basiru Ahmadou mu nekk kilifa gu mag fii ci diwaanu Sénégal sax la ñuy wax wax dëgg yàlla euh, ñu toog ak moom nii war a ak moom waxtaan wu ama am solo waa Serigne basiru Ahmadou tey bu ñu bëggoon a xam kan mooy Serigne Ahmadou waaw maanaam naka nga ñu koy faram fàccale waaw ah, Basiru Ahmadu moom as ndongo su ndaw la rek maamam tudd maam su lay jaañ bokk si seex sëñ tubaayam seexloon xomaak boole kook sëñ ma sàmba ñu dëkk tubaa si wetu jumaa ji boo paasee kër sëñ Mbàkke Madina sama waajur góor tudd sëñ Saam nekkoon waaye bàyyi laat sëñ Abdu Ahad waaw kooku kooku mooy sëñ Basiru Ahmad est-ce que sang bi am na solo macha allah macha allah tey bu ñu bëggoon a xam sa wàllu jaar-jaar maanaam ci sa wàllu métier fi nga jaar tey ba doon lii nga doon tey naka nga ñu koy faram-fàccale waaw sama wàllu métier moom comme comme tépp xale rek su waree jàng métier bi may jàng métier jàng naa métier muy safoon na si camion yi ay 99 ma dem Côte am fa permis transport dawal fa taxi ba 2002 bi robee li commencé ñëw dëkk bi xaw a jaxasoo si laa ñëw Sénégal bi ma ñëwee Sénégal ma dem si benn labo chinois ne fa di jàng photo ma jàng foto bi ay deux mille 2004 benn journal bu ñuy woowee stade jël ma stage ma nekk fa temps stage bi muy jeex mu maintenir ma ñu def ay quelque années mujj jubatuñu si ay kàddu parce que boobu dama nekkoon chauffeur bu pare nekk journaliste mun ma léegi daf may fay benn salaire bi rek bàyyi chauffeur ma ne ko déedéet man dama jàng ñaar yëpp dama may fay sama salaire salaire chauffeur après jubawuñ nag mu bàyyi ma dem la matin ma demee la matin si ma sàmm mbay nekk ak moom nekk ak moom ba ma sàmm mbay mujj fa jóge buggaan ngay tijji si café mu nekk si wereen bi noonu si laa nekk le matin après ma nekk magazine Debo mooy magasin di wane modèle yeeg mannequin yeeg yooyu ba fa nekk dem ay at benn jour waa groupe fi ma woo ma si benn guddi rek ni ma est-ce que bëgg nga liggéey fii ma leen waaw fii moom kenn ba ñu fi liggéey ma ñaata lay fay fole nangam nangam mën na la fay nangam salaire ñu d'accord si ma nekk fa nekk naa fa nekk naa fa ay at non yàgguma ko loolu sax si laa bàyyi foofu ma damay bàyyi après sax dem naa fi des médias mais foofu deux mois rek laa fa def la tribune après si la bàyyee tamit ma bàyyee nag ñoom ñëpp ñu naa du am fu gën fi nga nekkoon mënu am lu ko gën ma leen non li may am mooy gën fii mais ñoom mënuñu woon a xam lan laay wax parce xam nga dafa nekk mbir yoo xam ni dafa nëbbatu kenn mënu koo xam nit ko koy wax rek nit ko yëg rek moo ko mën a wax voilà ah, sëriñ Bassirou Amar loolu am solo trop maanaam sa jaar-jaar yëngu nga ci wàllum chauffeur jóge fa yëngu ci wàllum journaliste ba ci photographe mu nekk métier yoo xamante ni fi mu toll nii métier noble lañ ko mën a tuddee lan moo waral nga xëy xëy rek bàyyi yooyu yëpp yëpp lépp bàyyi lépp bàyyi sa liggéey booboog lépp lépp rek. waaw li ko waral mooy boobu maa ngi am soxna ma am doom bu góor bisu altine ma ne ko dama koy tuddee. yonent bi salaahu wax ko sama soxna ni ko nañ ko tudd yonent bi wante bu kenn musique ñu d'accord si ngeen di lu jup fekk man dem naa luyee sama mooy sana musique rek dem naa luyee ko jox ko mu jënd CD kamil mu xëy jàngul alxuraan ni ko léegi tegal mu benn CD bi rek kamil ku ñëw nee musique amu bi ñu tuddee ba pare ma génn rek waa kër gi ñëw ni ko sunuñ ba pare léegi da ngay teg musique mu leen non ki joxuma ki joxuma musique alxuraan moo fi nekk ñu ne ko noo ko da nga fiy jóge <laughs> fii dañ fi teg musique ma ne ko non musique du fi tegu léegi nag si commencement bi noonu dem naa police mu demee police quatrième bi nekk Médina dem si commissaire yu wax ko expliqué ko ne ko dama am ngénte sa dañuy kii musique bi sa man bëgguma musique mun ma noo boobu loi moom amul Sénégal quoi loi loi buy tere ma ne ko waaw mais man kon am naa sama loi <laughs> sama loi mooy su ma demee ma ñëw ba kër gi sama loi léegi mooy su musique bi amee dinaa ko fase ñu day wax day wax rek ci li nga xam ni day sol ay kabam di def lu ko neex nan day tere ma leen waa baax léegi bu ma déggee musique bi rek si laa woo soxna si ni ko léegi may naa la sa baat ñu naan moo day caaxaan day wax day wax rek mais loolu lépp rek man booba mbir yaa ngi may dugg si ndànk-ndànk sa fekk na nag fekk na nag damaa xir si yonent bi salaa salaam mu juddoo ba léegi dama koo bëgg lool lool lool lool lool lool lool lool si noonu bi ngeen tele passé fekk maa ngi nekk si ay jubatu yu bari comme jeune yëpp rek comme jeune bu nekk Dakar bu am 40 ans Dakar laa nekkoon voilà léegi bis bi dellu si dem ay fan ma commencé gis ne maa ngi maa ngi changé ma commencé dag li ma naan teg si loxo yi mooy mooy li ñuy jaay jeu di def ay Chelsea ay Arsenal daan ko takk genre kaws yooyu. mooy xale yi voilà voilà mooy xale yi takk seen loxo yi. may dagg di sànni dagg di sànni dagg di sànni jël sama sort sama pantalon yi di maye. gars yi waa sëñ bi yow loolu xanaa ngay bëgg <laughs> ma leen non nekkul dof de wante am lu may di dugg si man ñun ah yow kay saa yaa ngi waaj a dof la ma duggee nag mujj su ma demee si jàkka ji su ma tiimee alxuraan rek commencé jooy wallaay mu jaaxal ma loolu nag jaaxal samay mbokk. mujj si jàkka ji laay nekk maa koy maa koy bale di ko fubeere mujj ma bàyyi liggéey yëpp RFM ak groupe Futurs Médias fépp nekk si jàkka ji bale ngoon gi su ma xëyee fubeere loolu laa doon liggéey sama mbokk yi ni kii moom sànk na fini doon liggéey ba si yaa ngay bale ay jaka, sax xamuñu ni jàkk mooy néegu yàlla xam ne suñu borom bu la mayee bu la naree may dara foo mu jaaroo la si loolu néegam d'abord ma koy bale ne sonn muju nag mujj liggéeyatuma 4 mois def naa ko Dakar yoo xam ne mujj liggéeyatuma parce que xaalis mu yoroon naa ko liggéeyatuma léegi nag yoratuma dara wallaay ma ne si coono yi ne si coono yi ne si coono yi xam nga da luye këru luyaas borom kër gi di ma topp di ma topp ay 4 mois bu ku ñuy wax Diop le maire mooy photographe la tribune ñu mag ñëpp xam nañ ko Diop le maire moo yëkkati fukki junni fay maire bi wallaay <laughs> boo yoratuma dara parce que maa ngi taxawaalu taxawaalu gi mooy su ma naa bale bu ngoonee fu weeree mooy mooy jàkka ji nga xam ñu ngi nekk Medina rue cinq Cheikh Seck moo ko tabax seex Seck men fa lay jullee sax daana ma fekk wante xam ne loolu lépp maa koy def léegi nag benn jour ma ñëw rek am lu ma jëloo kaamil fekk man jàng ma woon lu ma jëloo kaamil ma jël kaamil bi rek dem si jàkka ji fekk nag bëggoon naa kaamil quoi bëggoon naa alxuraan ma jël ko dem si jàkka ji tiim ko tim ko di jàng saar yu gàtt gàtt yi ma man rek di ko jàng ay falaxeeg yooyu si noonu laa commencé waat jooy dikal, dikkal ma jooy bi dikkal ma jëlaat kan bi dem tëj yóbbu kër gi tëj ko ba beneen jour ma jëlaat ko rek mel ni daal dafa am lu ma ko rek lu ma ko leer ma mën koo jàng wallaahi mu leer naa ñu billaahi ma koy jàng di ko jàng di ko jàng di ko jàng weer weer laa ko jàng nag wàcce ko wallaahi ma li may wax ni barke alxuraan jàng ko weer ba kan bi jeex maa ko wàcce sama bopp kenn néew ma lii wala lii wala lii billaahi su ma demee ba nga xam ne dem naa foo xam saari dafa am saari yoo xam yombul ay alif lam mim. xaamim su ma demee ba si genre yooyu saaru damay jëlaat dencaat parce que parce que li ma suñu borom booleel bëggul may laaj kenn xam nga soo laaj laa wax wala lii lii damay tëjaat dem jamono am na rajo rajo bu nekk Dakar wala fajir boo xam alxuraan lay teg bu nekk si euh, RDV tamit am na tamit bu fa nekkoon voilà léegi moom laa daan déglu benn jour maa teg kaamil bi de ñëw naa ba foowaan xamul lu may wax ma dégg mu ne alif laam miim rek ma jëlaat kaamil dugaat si jàkk ji xam ni saar boobu la billaay noonu laa ko toppee di ko topp ba kaamil bi jeex tag mun naa ni li may wax day bañ ma laaj kenn parce que bugul ëllëg bu dara ñëwee ñu ni kii dafa jaar fee kee moo ko tarbi wala kee moo ko tarbi wala musuma laaj kenn kenn kenn kenn xanaa li ma laaj mooy ma mbir mi ne léegi Touba xam rek mbir mi du loo xam day jàkkaarloo yow di wax ak yow mooy ni ñu ko mën a waxee euh, sam xel lay dugg di la wax mooy yow nga toog ba si yàgg nga war a dem fenn mu ne romb ziar war dem fenn sam xel jek jek ah te warona ma dem fenn woon fàtte ko voilà mu dikkel la non la mel rawhan wala yoy rek non la mel lol nak nima touba nak la bir mi touba sa doko genn fek pare woo sa bobu xawma ñaata at yo xamni touba xamut mo fi dara ndax yoy mani touba tuubaa duma fa jaar dama sax magal ci billahi dama magal ci <laughs> at yu bari <laughs> mani ni mu mënu faa dem xam bo boo boo Dakar rek yag fa lol da ngay dem ba da ngay reer rek ma ñëw tubaa benn bis maa ngi koy fàttali muy nekk bisu ajuma si kasu rajab waaw weeru rajab la woon boobu maa ngi ñëw nii xam nga mbir tamit dalay xiir si lu baax di la def loo ay woori ngàtt nga bis boobu maa ngi koy fàttaliku maa ngi woor maa ngi ñëw ajuma miinu ma Tuubaa nag ma ñëw nekk sama kër boo xam ni kooku suñu ñaari yaay ñoo bokk ndey ak baay nga jógee Dakar ñëw tubaa ñëw Touba si bisu àjjuma bi di laajte fan la jumaa jege bu nekkul jumaay Touba parce que maa ngi nekkoon yoon Daaru Rahman ñu ne ma lu ma jógee ne côté bi may dox di dox di dox ba si jumaa jullee fa jumaa ji mooy jumaa yi Sëñ Fallu da Sëñ Fallu jumaa da mi ngay dégg ma fay waaw ma fay baagante di ma fay baagante di di dem di ñëw ne si liggéey bi nag di jàng alxuraan di woor di jàng alxuraan di woor di jàng alxuraan di woor ba si yàgg tamit léeg-léeg ay mbir di ma dikkal la may toog ay ay tur yàlla di ñëw xaw xawma sax waruñu tur yàlla parce que ku jàngut rek su ma dara dikkalee may wër si mara yooyu ay sëñ Alaaji Mbàkke wala sëñ sëñ Jiili moom sëñ Fàllu Jumaada noonu laa daan def léegi su ma siy dem di si dem di si dem di leen laaj naan la wante man de dafa am loo xam dafa may dikkal di ma wax ñu ni lu mu lay wax su la waxatee dara ñëwal wax ñu ko nekkate boobu day ñëw ay di ma jox ay tur yàlla ay yaa fataahu yaa rasaahu ak yeneen tur su ma ko defee moom japp ko dem si maray laaj ni la ni la wax tay ñu ma li ay turu yalla la <laughs> ma le man dama mos a xaw ma parce que musuma jang <laughs> ñu ma li nak soko topé fam lay jëme mom di nga dem ba di nga tok suñu borom na la noppal wante ay bala nga sey jot <laughs> wallahi na la ko maray wax señ mbak ñu ma wax lu wër la ko jaaxal ñom ñep dama la dem ci mom parce que ko ko dama xamone avant lolou di ñew motax ma dem ma yow ay pour yàlla yow xamoo si lii dara ma ne ko non non xaw ma si waan daam ku ma koy wax lu ma wax rek su ma demee waxaat ko ko léegi si noonu nag laa ko toppee di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ba nga xam ne xaw na sori tuuti nag léegi bi mu soree tuuti nag léegi am lu ma dikkalaat nag ni ma fii si Touba nag li ngay bëgg nag il faut ngay roy sëñ Touba si lay jaar pour mu ñëw sax xaw moon xasaay lu mu doon xaw daaw ma ko jàng daaw ma ko sax jege wallaay <laughs> waaw loolu rek leen la rek waaw il faut nga jaar si ahmadou voilà roy yaa xool li may solo nii fa la commencé léegi mu wut xasaayit bi ma njëkk a jël mooy wakkaanaa xan wakkaanaa xan laa njëkk a jàng waaw laa njëkk a jàng di ko jàng di ko jàng di ko jàng parce que boobu tey pijinoo boobu mën na maa mën na maa liifantu lii rek yooyu ma koy jàng di ko jàng di ko jàng ba si mu jox ma si ay secret nag ma koy def fekk nag boobu nag ñetti at fekk boobu nag yoratuma dara ab dërëm laa la wax mel ni xaalis bu jaaree nii nee lay jaar xaalis du ma jige fenn wallaahi <laughs> xaalis bi sori ma. yee ma gëm ko rek. mujj yére yi commencé tilim nag nit ñu commencé daw nag mujj na ba su ma demee jumaa ji di julli tataam du ko am boo nii nii du taxaw da daan ki wéru billaahi <laughs> ma sonn lool damay jóge yoon daara maan dox dem julli bu pare dem suñu kër añ doxaat ñibbisiwaat oto du ma ko am oto boo arrêté mu làng sareet ñëpp di la daw ndax climatérim goo xam ne ñaang-ñaang goo xam ku ma gis moom du kii moom nit la moom nit moom doo ma ko teg <laughs> nit moom doo ko si moom si noonu nag laay demee di si demee di si demee di si demee ba wakaana xan boobu ma koy jàng jox ay dog ma ko siy def di ko si def di ko si def ba si yàgg mel ni mbir mi dafa wëlbatiku nag ba ku ma gisati ni ma yow ma laa jàpp ngi jëmi Sëñ Tuubaa yëkkati am jox ma billaay may wax ak yow nii ba tey ji même su ma liggéeyul damay am xaalis billaahi su ma liggéeyoo sax dana am xaalis nii day ñëw di ma jox xaalis ku ma gis ni ma addi sëñ Tuubaa ma xam ni kii la suñu borom ni mu lay soppee ak ni lay nga xam ni Ahmadou bokk si bokk ci ak ni lay soppee ba ba nit ñi ñu lay ñëw a jox addi sëñ Tuubaa sa yow bu njëkk kenn xamuloo woon kenn mësumaa jox addi sëñ Tuubaa koo arrêté mu lànk koo jege mu daw la dem ba nit ñi wut si waat la sa boobu tamit ba lekk maa ngi sol yére yi ni mu tilimee léegi si noonu si la liggéey bi continuer saa yu ma xëyee maa nga jumaa ja 9h 9h laay dem sukk si béréb suñu tubaab di jàng samay xasaay di fa ne di fa nekk di fa nekk di fa nekk ba heure yi bëgg a añ bëgg a jot ma dem bu nekkut bis yoo xam ne damay def mooy li may royee sëñ Tuubaa xam nga sëñ Tuubaa boo koy roy doo ko roy si ay iska sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Tuubaa rek <laughs> dafa am looy royee sëñ Tuubaa waaw sëñ Tuubaa da koy roy si daraan woor alxames ak altine naafila yu sëñ Tuubaa julli na ñaar rakk ay sandar julli na fee julli na fee loolu lépp rek da doon def sa bu jappé julli ñaar rak ko aussi jema roy roy ko si sikim bi roy ko si karaw gi xam nga li neexut sol chaque jour pergal neexut sol de <laughs> do sol mbassin waaw ñu téré mo loy mbassin ni ma il faut nga roy sëñ Tuubaa pour li nga bëgg mom bu ñew si yow il faut nga roy sëñ Tuubaa nga am ko ma nekk si nekk si nekk si nekk si nekk si nekk si nekk si nak noonu nag laa si nekkee ba mujju nak suñu borom boole maak sëñ Abdou Karim ma dem fa nuyu ji ko voilà waaw borom ak axam ma dem fa nuyu ji ko benn jour rek suñ borom am lu ma kii rek ma dem fa rek nuyu ji ko ma ñëw rek ne ko sëñ Amdi Bousso moo ñu bo sëñ Amdi Bousso doomu sëñ Mbàkke Bousso la moo yore bérébu sëñ Tuubaa ma ko waxee sëñ Abdou Karim tamit kii ma lool nuyu ma waxtaan ak moom foo jógee Dakar ma ne ko de maa ngi Tuubaa gi mu xool ni ma mel yëkkati xaalisam jox ma ni ma bu ko safee passé da fiy ñëwaat si noonu noonu sax si la photo yi commencé génn. mooy loolu ñu dégg ci lu bëri. Mhm. maanaam photo yooyu. waaw ñu dégg ci ah gis ngeen di ko publier si internet bi Facebook bi WhatsApp bi mu indi coow coow loo xamante ni bëri na. Mhm. ñëpp naan tey euh, jëmm ji dafa demoon siyaare ji. dof dof bi dof bi ma ci kàddu gi. waaw am solo am naa dof ko yow. mais dof bi tey daa demoon siyaare bi sëñ Abdou Karim loolu loolu man bi tam. bi ma gisoon. Hmm. la sama xel jàppoon nag. dëgg la bëgg loolu tamit nga leeralal bu baax a baax. waaw non li may leeral moom mu sa natt moom sa da see bokk. dëgg la xam nga ma soloon lii moom du ma am nattu parce foo dem ñu jox la cër. wante nga solu tilim nit ñi dila daw ki dof na xam nga ku ne yow dof nga sa yow leer na dofu lool sa am na ko gëna a metti amul de sa yow leer na ni yow da nga wër pëlëg pëlëg pëlëg fo jaar ñu daw la jigeen ñi dila daw xalé yi dof baa nga ñew daw leen daw leen daw leen koo jup mu daw la ndax ni nga mel ba si ay benet benet yo xamni ni suñ borom defal na leen mu mel ni sëñ abdou karim ak ñeneen sax di nga dajé sax ñeneen ñu la respecté jox la cër mais ñooñu xam nga suñu borom moo leen baaxal xam ma baax du si rek ku bari xaalis wala naa baax mooy gis koo xam ne ñëpp a koy daw yow nga jàpp ko loolu mooy baax woyof woyof da nga woyof sa bopp comme si Abdou koo xam ne ñëpp ne leen kii wér na wala wérut nga jàpp ko loolu mooy baax wante baax du bari alal wala alal moom suñu borom na ko may ku na ko may kàccoor ku ne la koy may xaalis mais li muy may ay nitam mooy ragal yàlla ku baax woyof loolu suñu borom di maye su loolu daal la ma sëñ bi jàppee jàpp ma si jàpp ma si ba léegi may wax yow nii sax su ma gëjee gis xam nga dama daan liggéey bi day am jamono yoo damay tëju léegi dinaa def 6 mois du ma génn sax buntu kër bi suma yaaga ba yaag mu woo ma lan la ma ni ko déedéet dama ne si liggéey bi ma nekkoon de sax ma liggéey dafa nekk liggéey bu metti boo xam ne yow du rek loo xam ni dañ lay gis ni si mbedd mi rek wante yow ni ngay dundee day metti dund goo xam ni yow fi ngay tëdd ak lëndëm rek ngay tëdd doo taal lamp ay lekk yi te am nooy lekke daa am nooy de xam nga du lépp lañ mën a wax si télé wala wala rajo wala am na yoo xam ne moom da nga koy suñu borom mbiru suñ borom la daal wax si rajo yooyu mais daal du boo xam liggéey bu yomb la dof gee si gën a ndaw i naan dof na dof na moo si gën a ndaw am na lu gën a métti loolu lu gën a métti loo xam kenn du ko mën a wax si wante liggéey bi daal suñu moo koy joxe kenn nag du ko jox kenn moom si cooroon la koy joxe voilà suñu boroom mooy jël lu ko neex def ko si nit soppi la nga newoon si ay mbiri journaliste xam nga journaliste dañ lay yilif dañ la naan xëyal dem fee boo xëyaatee demal fee sept ngay ñëw bu weer dee nangam mais lii kenn du la yilif lu dàq <laughs> lii moo dàq mais nag si borom la ko jox la ko jox nag foo mu teg lu su lu méttee métt comme ni ko si ki may roy fan la jaar sëñ Tuubaa boobu jeexul sax. waaw ah. naan ba mbubb oh, mi eh, nag li ñuy waaj jeex si la ma suñu boroom xam xamal am ko ma booleel muy muy liggéey bu may liggéey nii mooy mooy aaya bii. aaya bii xam nga lii aaya sóoratu jinne la. xul ya ilaya annahu istama nafar minal jinne xam nga fi la yem. fa xaalu inna sami'na qur'anan lii maa ko si yokk. secret bu suñu borom xamal muy jinne boo waxee jinne da nga naan Moussa xam loolu ñu bari ngi dégg Moussa jinne Moussa sax xamuñu ko xamuñu dégg waaw suñu borom nag boole ma ak su ma waxee xul ya illaa annahu istama nafar minal jinne ma ne ma yokk si Moussa ji léegi Moussa ji nag léegi boo amee boo amee boo amee looy ñaanlu moom laay bind sa tur ak sa turu baay ak sa turu yaay si musa mii moom laa koy bind mooy secret bi nga xam suñu borom rek moo ko sañee jox nit waaw parce que nit moom sañ ci yokk alxuraan darawul sañoo ko si yokk mais boo dégg ñu wax wax sañ-sañ mooy lii sañ-sañ da ngay dégg sañ na maa takk fanweeri jabar sañ na maa toog du ma julli bu ko dingat bul sax dingat non non <laughs> suñu borom li wax si téere ak li wax si suuf moo ëpp li nga xam da koy wax ay nitam du ko wax si kaw xam mën na ni julli leen xam nga danaan julli leen suñu borom moom danaan julli leen képp ku képp kuy julit julli la wax bu ko neexee dee ni ko bul julli yow na nga nekk fi ne eh kii julliwut kii di sawara la jëm yow nga dugg sawara <laughs> sa yaa ngi julli de moom moom julliwul fekk suñu borom ko ne yow bul julli am suñu borom moom du ko déey ba pare yow ñëw déey la ni ko gëm ko déedéet moom da koy déey rek yow na mu bàyyi la voilà si la ma suñu borom joxee Moussa mi nga xam ne man am naa sañ-sañ man Basiru Ahmadu su ma bindee xul ya ilay anoo istama nafaramul jinne ma yokk si Moussa mii Moussa mii nag si laay bind sa tur bind sa turu baay bind sa turu yaay léegi nag bu dee feebar bi ngay feebar bi nga xam ne moom moom laay ñaan sama leget yële leget yële ndox ma nag salaa ajoo man la may ñaan suñu borom salaa koy def boole ko ndox mi ak reenu daqaar parce que Moussa mi jinne la boo sama mbir xonk maanaam même yow mii sax bu la suñu borom namoon si yow dara bu la xamalee sa jinne ji mu nga nit ku ne ànd nga ak jinne bu la xamee sa jinne ñi yow mi da ngay dem ba nekk dara wallaahi lu wér la laay borom xam yëpp jinne ji nga àndal rab koo gis ànd boo xamoon li bëgg ba koy defal yow mën ngaa xëy xëy soppeeku nekk borom xam-xam billaahi lu leer laa lay wax nii. léegi mën nga maa xamal man li sama kii bëgg ndax ma déedéet suñ borom moo la ko mën a xamal ah. bu dee jinne ju baax xam nga jinne yi bari na am na jinne yoo xam ni nit ñaa ngi ko yor yow mi boo ko bëggoon léegi am na borom xam boo fa demee yéen a xam-xam yu ñuul ñu jox la ko jox la tur ju ne nga koy wér di wér di wér léegi ji ñëw si yow wala léegi mu ñëw ni la nag booy julli de bu ñuy wutee penk wuteel càmmoñ del kii xale bu jigéen nangam nangam defal leen xale bu jigéen di la jox lu bon da dem ba la rang nga bari xam da wax léegi léegi mu nungu loolu mooy xam-xamu ñuul mais bokkut ak ñun xam-xam lii xam-xam bi yàlla la moo la koy jox du loo xam da wax léegi dangay jox nit ne ko defal juróom-ñaari fan mu def juróom-ñaari fan man toog muy ñëw ndànk-ndànk di ñëw ndànk-ndànk ba mu ba loolu mooy alxuraan bokk teg loo xam ni jinne ko yore bu ko neexee jël bu ko neexee ni la booy julli bu nit ñi féetee penk féeteel càmmoñ koo xam nga ni jinne ji yow moom moo lay digal moom ngay dem bay jaamu lii nag suñu borom day teg si yoonu jub day teg si yoonu jub bokk ñuy wax ay dóorkat ndax xamoo woon dara xamoo woon dara xam ku xamul dara xëy mu xamal la loolu moom moo la xamal mooy la ñaaneel ma nii sa ndox mi la ma siy wax ndox mi la ma siy wax la ma siy wax moom mooy yow feebar bi nga indi wante lii moom lii moom mooy mooy ki ma boole xam nga lii moom alxuraan la xam nga li sëriñ yaa ngi siy faj sax lii rek sëriñ yaa faj alxuraan rek si dinañ ci ñëwaat nga gën koo leeral ñu leen di fàttali ni yéen a ngi ànd ak seen rajo télévision Baol Média tey ñu seeti woon euh, Basirou Ahmadou waaw mu nekk kilifa macha allah numéro téléphone yi mi ngi nii série 77 125 40 81 77 125 40 81 wala nga def 76 699 45 41 76 699 45 41 waaw Serigne basiru bismillah eggale waaw mane mane xam nga lii moom yàlla moo koy joxe bu la yàlla joxul doo ko am du lu ñuy jàng fenn déggoo ma la man mosuma dugg benn daara wala ma laaj kenn dara sa lii man sa lii man daf ma dikkal ma bind ko jox ko sëriñu daara ñu ma koy bindal billaahi <laughs> est-ce daara ma koy bindal nii sa moom ñu koy bind jum na si jumte goo xam ne parce que lii mosu koo bind lu kenn am kenn amu ko wallahi man nga wër serigne bu la neex nag benn serigne bu la man musa la andal amul fii musuma ko dégg déglu naa rajo bu ne mi amul léegi eh, kon da ngay yëngu ci wàllu ñaan waaw wàllu ñaan la jafe-jafe bu mu mën a doon no xam suñu borom bu la mayee dun la moom da ngay faj ay city siti day ndiglu day metti ak nangam déedéet moom suñu borom xamul loolu suñu borom daf lay may la rek képp ku am jafe-jafe ba mu des jafe-jafe bëgg liggéey nit wala nga ni takkal sama baatu jëkkër ba xam ne lu ma wax mu def loolu daal loolu daal liggéey moom lay bañ mu ni def lu bon lépp lu bon moom du ma ko def du ma ko ñaan mais lépp lu baax jubale nit faru rab nga xam ne moo gën a bari sa man xam rab laa àndal jinne mooy rab rek ki mooy seen kilifa Moussa mooy seen kilifa xam ne Sëñ Tuubaa nekk kilifa murid yi noonu la Moussa nekk kilifa junne yi sa borom xam-xam yaa ngi may déglu nag ba dañu am xam-xam bokk waxuma nag xam-xam yëri téere de mun yëru boo yëg képp ku nekkub sëriñ bu mag war ngaa xam ni Moussa mooy jinne mooy kilifa yi parce que wàllu yu la ñëpp xam nañ ko bu dee ko am xam-xam waxuma na ko yëri téere bu la suñ borom bu suñ borom booleeg moom nag moom dundi la ku ñëw da ko naan feebar naa ngay faj wala naa moom defal rek ku ñëw ñaana ko si feebar am jërëjëf euh, jërëjëf Basirou Ahmadou waaw kon ñu ñu leen di fàttali yéen a nga ànd ak seen rajo télévision Bawal Média euh, si kàddu gi Bour Guéweul Mbaye ki nekk ci caméra bi Serigne Modou Diop Thiat waaw xam naa deuxième partie bi incha allah dañ koy tàmbali léegi léegi ñu leen di fàttali numéro téléphone yi 77 125 40 81 wala nga def 76 699 45 41 76 699 45 41. waaw kon da ngay def ñaan sëriñ bi ñu yëkkati jataay bi bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata mustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin للمصطفى نويت ما يجدد السنة خرا وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد